Touré ak Cheikhouna Sylla mi étudiant la. moom duma la ko nëbb man dinaa la defal. maanaam témoignage maanaam Saddex Toob laa toogaloon di ko tooñ. waaw ndax ñoo nekk ndoor. waaw maanaam ko Saddex sa waa ji moom teg ko ci suuf. jeex na léegi nag gis nga booba laa lay wax li ma bëgg nag sénégalais yi xam ko foofu mooy booba soo ko fan la tegoon ne bu ma Macky Sall songee ma wàccee ko. fan la ko tegoon Cheikh Bara. xaw ma ko te pourtant bi ko Macky Sall songee effectivement diggante bi lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw Sénégal dugg nañ ci ba mu wàccee Macky Sall ci loolu. Mm-hmm. ba Macky deltu Mm-hmm. waa léegi xoolal deux xoolal deux mille euh, vingt-trois deux ans après. deux ans bi Sonko doon Sénégal kenn mësu koo gis. moo nekkoon force am dama ne la taxawal rek ma ñëw. ñëwal ki phénomène bi Sonko doon nit mënula la koo wax ñi la gën a bañ Sonko seeni rakk seeni biir kër ay Ousmane Sonko lañ. Mm-hmm. ñi la ko gën a bañ laa la wax nag. Mm-hmm. am na ministre yoo xam ne seeni jànq seeni jabar maanaam Pastef lañ te mënuñ ci dara mas naa koo tudd fii baa ma tuddaat ko sëñ Basirou Guèye bu ma yeboo ma ne la këram ak i fameem moom dong moo ci dul Pastef procureur boo fi woon ba ci procureur Abdou Karim Diop mii man xam naa ay miir amiin yu ko jege lool Pastef moo seey seen xol yi hmm? waaw te ñooñu ñoo Abdou Karim nit du leen teqale ba nga ma fi Baara Sankhare mii ma la wax. Mhm. mais ay rakam ngandi maam yi Pastef lañ. Mhm. Maître El Hadj Diouf mii ay famem ay Pastef a ngi ci. demal topp bu la neexee xoola seen kër xoola sama kër demal kër sëriñ si. man fan yi dem naa fi euh, mbuur di siyaare benn sëriñ ah bi may dugg mais bi ma duggee ci biir kër gi ñu dégg ñu ne Cheikh Baara moo nekk ci biir kër gi bi ma génnee maanaam mbedd mi nit ñi dañoo taxaw. def naa fa lu mat 40 minutes parce que nit ñi dañu dañuy taxawal ñu fa taw yow. waaw dañuy fa taw yow maanaam phénomène la boo xam ne kenn mënu wax maanaam kenn mënu ko expliquer lan la nit ñi nag mën nañoo toog ci tele bi di ñàngal nii de mais wallaahi gis nga gis nga gis nga li Sonko fi fi fi pouvoir am yegg ak dooleem. Mm-hmm. amul kenn ku ko mën a mesurer. Mm-hmm. bëri na kuy ŋaatar ŋaatar yi ci tele di wax wallaahi al asim ñi la gën a jege laa wax nga leen di fay Pastef lañ. soo ko weddee xool ak groupe de presse yi demal toog demal nga xool. Hmm. mas ngaa dem ci benn man de musumaa dem ci benn groupe de presse fekk ma fa garde ba nekk Pastef musumaa dem ci benn banque fekkuma garde ba nekk Pastef li ma lay wax nii nag lu lu lu lu lu logique la loo xam ne waa léegi Sonko bi mu amee loolu nga xam ne taj na réew mi réew mi tas na ñëpp Pastef lañ ci la def vidéo woone man dañ may jàpp. bu ñu ma jàppee duñ ma du ma rëcc élection laa jëm sama ginnaaw liig lii lii laa fi bëgg kon loolu dafa ñëw wax ñi doon wax naan euh, ah. vidéo yi ca prison ba la ko def non vidéo yi bi mu bi bi biñ ko barricadé la ko def da koo def teguñu ci ay semaine ñu jàpp ko léegi li ma la bëgg wax mooy Sonko ba mu amul doole na Macky Sall mënoo maa jàpp te mënu koo jàpp bi mu demee ba am doole ah mm-hmm. ne Macky Sall daf may jàpp Macky sàll jàpp ko mm-hmm. xam nga lu ko expliqué. lan fee Sonko xeex rek la amoon bu xeexut day dee. Mhm. politiquement dafay dee. Mhm. mu xeex fii nag xeex bi ñoru ko politique ko ñor. li mu mhm. doon def rek mooy nañ sànni affaire bi rek ñu dem ci urne yi ma gañe ko. dégg naa comprendre nga leen bëgg a wax bu baax. naa la Sonko bu amoon dogu. ci ne Macky Sall du ma jàpp def ci ay vidéo yu leer ne askan wi Macky Sall daf maa bëgg a jàpp comme ni mu ko waxee ci vidéo yi. leer na ma nañ dina ma jàpp su ma jàppee nag jóg leen bu leen ko bàyyi wallahi kon bu askan wi jógee xajuñ ci Macky Sall benn bëccëg. Mm-hmm. mais boo xoolee presque woote wu ko. Mm-hmm. doo gis benn vidéo bu muy waxee ci ne suñ ma jàppee doxalee leen nii doxale leen nii dafa mel ne pare woon na ko. Mm-hmm. léegi nag loolu lim lay jàngal mooy soom ko dafa politique ak nag dafa xeex ak Macky Sall 2021 gañe ko dem ak moom ci politique ci urne gañe ko. dem moom ci stratégie politique gaña ko ngañaay loolu nag mooy li génnee prisonniers yi démb moo waral poulet poulet jii hmm, loolu xalifa nag bu ko xoolee na xool ba xam ku diil maanaam day am loo joxe am loo jël booy yi génn nañ d'accord hmm. mais moom du laaj mbooloo mu toll nii xamante wuñ bokkuñu deli bu ñu leen di toppee nan leen mën a bàyyi indoo danga bàyyi ko tooñ waaye bi ngay jàppit kon jàpp nga koo xam ne deful. 500 personnes yu xamante nga mën leen a boole benn bis bàyyeendoo leen donc nekkoo woon ci dëgg. donc Sonko moom kenn mënu laa wax ne dafay diil wala dafay complot. parce que complot moom ni ma la ko waxee rek balaa moo tàmbali rek mooy discours bu sensé ak xarit yu sensé. d'accord bi mu d'accordee dialogue gi lan la njëkk a def. bàyyi sonk attaqué ko léegi Sonko moom bi mu bëggee dialogue gi lan la sensé nañu ko wax. fan la discours bi sensé discours Alaaji Malick Ndiaye ba léegi mi ngi fi. Hmm. Ngagne Demba Touré ba léegi ma nga ca. Hmm. léegi booy yi daal nekk nañ kaso génn nañ kon dil la waa léegi booy yi mënoon nañoo dil génn mais dañoo gañ a génn. Hmm. Macky Sall léegi yow na bàyyi booy yi ci kaso bi ñu dem élection. xam nga Macky Sall lan moo tax mu bàyyi booy. xam mooy xaqiqa bi. lan la. élection yi Macky Sall daf ko dem gis ne référendum la. élection yi ñu jëm référendum waaw. nu muy nekkee famille bu ne dangay ngay dem wate ji pour libérer sa bopp say doom. démb ñu daje fee ca ca buntu prison ba da ngaa yaakaar ne jotal leen fa indi. du jot de xam waaw léegi ñañ bàyyi ci kër yaa ko ëpp. waaw waaw. ñi mënul ñëw ñi mënul ñëw. ak ñi ca Facebook ba ak ñi ca live yi ak ñëpp. yi référendum la woon benn mooy. ñu nekk ci Pastef ñoom danañ wote parce que buñ wotee ba ca suba sa dañ génnee Ousmane Sonko prison. Mhm. ña nekk ca euh, kii ba ñoom dañuy wote parce que dañoo jàpp nit dof sama mbokk la dañoo jàpp Ousmane Sarr sama mbokk la dañoo jàpp Bayna Gueye sama mbokk la dañoo jàpp diw pël yi am nañ ci séeréer si am ci njaago yi am ci ñëpp daayira yi am ci ñëpp ca mhm. donc kon voie référendum boobu mooy wote dindi noteel gi. xam nga dama ko daan wax. le vingt cinq décembre man wax naa ko fii mooy bis bi nga xam ne mooy dagg buumug jaam vingt cinq décembre mooy wat mooy libéré gor yi wax naa ko. Mhm. sama benn chronique loolu ma waxoon nag maanaam loolu moo nekkoon charme élection yi. man sama digganteeg yàlla bi ñu daan wax dañuy bàyyi jomaay doon aywa yàlla bu ñu ko bàyyi sama xel. Hmm. ah, ah moo gën a gaaw. Ah, ah moo gën a gaaw di. ah jomaay génn rek di campagne. nekk ci kaso bi ñu ñu fal ko moo gën a gaaw fuuf parce que référendum la ban sénégalais mooy xam ne kii bu ma ko wateelee dana bàyyi junni doomu aadama ci kaso not leen te dana na tooñ kii bu ma ko watee dana génnee junniy doomu aadama ci kaso te ñooñu nekk ci kaso ba kat du ñuy bandi dañ leen a tooñ dégg nga ñëw tànn ki nga xam ne day téye junni doomu aadama ci kaso bi loolu jullit du ko def jullit mënu ko am na ñu ñu bokk bennoo boo ko yaakaar seen xol attanu wate loolu hmm. léegi nag voie référendum boobu day jéem a supprimer hmm. donc li ma bëgg a wax foofu mooy Sonko dilut maslaawut dialogue sax leneen la. dialogue moom man ba ñuy wax dialogue dama ko mas woo ci dialogue man mu yaay ma nag parce que xalifa ma demoon wuy ji gisuma lu ko dialogue ba jariñ waaw mais gis nga tey jii ku dem élection dem parrainage am ay ay ay ay nañ ko sante Pastef ak Ousmane Sonko. Hmm. billaahi suñ fi nekkul woon xeexuñu ak Macky Sall jaayuñu ko fit wi ñu ko jaay heure bii Macky Sall leneen la ñuy wax lu dul ay élection d'accord dana am assemblée majorité boo xam ne mën a jekku réew mi jekkun woo xam ne li mu fi bëgg mooy am ci nam ko bëgg kenn moo ñëw fexe ba xeex ak Macky Sall ñu dem ci politique politique ak politique mu gañe ko ñu dem ci xeex ak mbedd mu gañe ko xam nga lu mu ko gañee mooy yonent yi ngay dégg wàllu yu yëg saadixi ne yëpp xamalan la mooy mbir mi boo ko wéeree ci yàlla te muy dëgg naxoo yàlla naxoo sa bopp ba noppi yàlla may lan ay ndaw ànd ak yow ay ndaw yu déterminé wu ànd ak yow mbir mi mu dul mujj fu dul victoire mbir mi mënta mujj ci lu dul victoire man maa la ko wax demal xool histoire u àdduna am na benn bés ñuy conférence de presse ca jàkka ja ne woon naa mësumaa gis yàlla jël ay ndaw yaakaar loo leen dara ban yaakaar ko mu xëy tas yaakaar ji mësuma koo gis kon mbirum Ousmane Sonko mi ñu ko yaakaar na ci yaakaar ju tas lay mujj xamoo li ngay wax. Hmm. ah oui mais fu mu mujj. fu mu mujj mi ngi nii ñu jëm ci élection ñëpp xam nañ ne bu ñu demee élection Pastef gañ a élection yi Macky sàll moo la ko gën a xam amado Ba mii moo la ko gën a xam. candidat yi yi mu ko seqal ñëpp ñoo la ko gën a xam te dinaa la jox fii exclusivité. Hmm. parti Benno Bokk Yaakaar li ciy dagg dem ci ba Macky euh, coalition bii bu Sonko bu ñu jàppee datu élection yi doo ko mën a wàññi. ah bon man maa la ko wax. fii na nga ci am Cheikh Ba. ah man dama dama damaa nekk biir bagage yi. waxantu dama dama ne lu leer laa wax ay avis. Hmm? ñoo xam ne ñu ngi nii ci Macky Sall bañ tëgg élection yi. da nga dégg ministre diw diw diw diw diw banañ ña nga ca Diomaye man maa ko wax. naa mbokk yi wéy leen di commenter ngeen partager aimer poser leen i question bu ngeen ko bëggee itam Cheikh baar dina ci tontu moom mooy gan gi tey ji ci suñu entretien biñ ko amal nii nga xamante ne nii ñu ngi ci ànd ak moom ci subaak léegi day traité actualité bi di ko waxtaan waaye ñu mu wax nii man lu lu lu ma jaaxal la Cheikh baara nga ne am na dina am ñu fëggee ca làng nga dem fële waaw yaa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi kay ñun ñaar kay nañ toogaat dama ne yaa ngi fi maa ngi fi ba ñu demaat ba nañu élection yi jour tel la man jàpp naa ne le 10 mars dinañ normalement d'ici demee wala après demee président dina dina publier ban jour la ñuy dem élection. moom tey wax na. nee wax na tey dina dina def réaction dina consulter ñi mu war a consulter nañu dem leen dem leen élection jour tel. mais tey lu ko war la war gis nga bu ñu demee élection. Mhm. demuñu ci ay élection ci ay humiliation lañ jëm. bu ñu demee ci élection demuñu ci ay élection mais. humiliation lañ jëm Sénégal dafa bëri loo xam ne soo Sonko ko fi njëkk am. mooy lan. dem ak état ci mbedd mi xeex ak moom gañe ko. c'est la première fois ci histoire Sénégal. dem ak moom législatif xañ ko élec état amu fa amu fa majorité c'est la première fois ci histoire Sénégal mm-hmm. ab loi jóge conséquence constitutionnel état indi ko fa ñu ne ko du fi dugg mm-hmm. c'est la première fois ci histoire Sénégal mm-hmm. bindal li ma lay wax denc élection yi di ñëw résultat bi am c'est la première fois ci élection Sénégal kon mu ne suñu xaar du élection humiliation la kon ay deuxième tour tour moom du am kon kay mën nañ koo def avant le 2 avril. bindal denc deuxième tour du am. élection yi premier tour la te résultat bi dana dóor yi dana métti métti métti woo xam ne mësta am ci histoire Sénégal. voilà Sénégal waxa fi nekk rek mais politique amatu fi. yow mii werante politique amatul bu njëkk dañ daan daje fenn kii nekk Wade kii nekk Idi kii nekk Macky kii nekk lii kii nekk la léegi ñëpp kenn nekkatut kenn ñëpp Sonko ne ñëpp bii bu la neexee équilibré. invité nga ma tey inviteel keneen invité keneen ñëpp nga ñamal leen. Hmm. parti bu ne daanaka benn benn waaye fay nekk di wax Sénégal benn parti fi nekk dañu waxante dëgg. man de camp présidentiel maa ngi leen di woo rek waaye. politique amatul dama ne la politique amatu fi. yi ñëpp Sonko lañ gis nga lii am nii lim yàqal Macky Sall kenn mënu ko wax. Hmm. Jibril Bey. men bu APR ay Moustapha ñoom aadama Fall. Adama Fall waaw mm-hmm. ay ñoom mooy ñi nekk nii di di dem rek ci ñu new rek. Samba Ndong. waaw ñooñu rek ñooñu dañoo am courage. Mm. dañoo am courage rek dee baa neex leen mais ñoo la gën a xam ne hmm? argument yuñ yuñ yuñ layalee. luñ layalee Macky Sall sax. ma amuñu ko. mais mais mais mais Cheikh Bara maa ngi la koy wax léegi ma ne Macky Sall. tey génn nañu waa présidence def communiqué ne dañuy jël acte boole ci itam lépp lu conseil constitutionnel wax ñu ànd ci ak ñoom ça veut dire ne nangu nañu te élection dinam avant le 2 avril. waaw loolu kay amul lu ñuy bañ. Macky Sall bu ko conseil bi ne woon da ngay da ngay toog kay loi bi mën naa jàll du ci teg baat day toog boo ko waxee mu ne conseil conseil ne la ko nangu. mais ndax conseil conseil. le fait conseil bi ne ko du jàll. Mhm. amatul pexe. Mhm. Macky Sall mel ne ko dese. te mooy mi gën a sedd ci moom man nag su ma doon moom loolu laay def mooy euh, organiser élection yi ci ni mu gën a gaawee dat jàpp dat bu baax boo xam ne doo ci def benn sabotage bàyyi élection yi mu déroulé su noppee nga def passation de service waajal nag discours boo xam ne discours historique lay doon reconnaître say force yi nga am ak li nga jariñ Sénégal waaye reconnaître say erreur xam ne nit nga te politique yi fi nit la te réew mi dénkuñu ko woon malaaka mais nit lañ ko dénkoon koo xam ne dafa am lu mu baax le am lu mu bon le mm-hmm. am fu muy defee lu baax am fu muy def ay erreur dégg nga mm-hmm. am na lu ma def lu bari loo xam ne baax na am na lu ma def loo xam ne ay erreur la xëy na nga jégguloon teg sénégalais yi xool ki nga fal ki la wuutu ak ku mën a doon lim baaxle nga waxal ko ko te bañ caa sikk dara ba noppi soññ saw nit ñu jàppale ko ci liggéey bi mm-hmm. te wax ne tamit dinaa seppi sama loxo ci politique